yéen affaire dafa agression rek ci bëgg am dama la wax sama bopp boo demee ni dama amoon mille francs a nekk. wala xam man sàccee fi jàmbur kay bébé wàccal mu doon mënoo da ngay wàcc wàccal mu doon bi. bàyyi ma man fekk man fekk sama yaakaar mooy. sant yàlla bu baax alhamdulilah. liggéey bi. waaw. alhamdulilah naka gi. Hmm? naka koor gi. koor leen. na leen waaw yàlla ah man de góor gi mbokk Kébémer la. waaw bàyyi ko Kébémer. waaw. Euh, dafa am cees ab tele bu bees bu fi ibbi. bu ñuy wax Prestige TV. waaw Prestige TV du ñàkk sax yéen waa Thiès yéen a ngi koy seetaan daa mel ni. Ah, waaw léegi télé boobu nag. waaw damaa xëy dana am jeu bu ñu doon def. ma bindoon ci sa concours bi. ñu ne ku gañe di nga am téeméeri junni. waaw tey lañ xëy suba teel woo ma nag. ni ma gañe nga ko. waaw man la maa nag fan la télé bi toll. te wóor na ah. boo gisee sax ma sàkku la ci wax ak yow. waaw maa xam nga rek damay bañ ku ma jublu te man leer na ma ni woo nan ma ne ma trois fois sax ñu ma mujjee woo nii te balaa six heures fu mu ñëwul ñu qualifié xool ñoo may woo Adama maa ngi nii léegi maag si léegi maag si léegi maag si ñoo euh, euh, euh, bi direction bi fan la nekk de Prestige direction bi ah oui ma boo gisee tawal moo la tawal tamit daa mbir mu ci am daa mbir mu jam mbir mu jam moy témer ju junne bala ma ca jot faaw ma yor 250 waaw ma bëggoon lillahi wa suul rek donte xamuma rek. ak li ngay wor wor bo yoree juróom fukki jinn nga al mako ko ma dem mën jot sama témer jinn suma ñëwé juróom fukki jinn al tagal tegal fukki junni boo bëggee màggee ñu am. lu leer nga wax waye ci man li ma la wax man fa inna ma sadaqati lil fuqara wal masaakiin ab ko sur la bi sa ko man dama ko ma sa dara loolu li nga dégg loolu. li nga wax la xamul ci arab dama ne. damaa bokk ci nga xam ni way néew doole ji lañu mooy foqaraaw yi ak masaakin yi yoruñu dërëm kër ga laa jóge nii sama jabar dama jural yeewul te jógoon gi ndax ma ñu am li ñu toggee ndaw su ko comprendre nga ci mën naa seet li may wax nii mënu may dégg ku carnet laa yore di bind ñu may départ bu ne fukki dërëm lañ ma jox te ci monté bi bëccëg bi wàccagul trois heures de bi quatre heures lay mën yow de kon pour nga jox ma juróom fukki junni moom waxuma la juróom fukki ci boppam wax bu wax junni kay del juróom fukki dërëm laa la mën ta jox kon <laughs> xam nga loolu juróom fukki waaw déedéet reetaan loolu la li ma wax day dëgg juróom fukki junni ci boppam laa la mën ta la jox juróom fukki dërëm waaw kon de yéen a fee laay mën a fee te damay toog dallu fii rek ba ci kanam ma dagg kon ci rompañ jaxaw bi ah ci rompañ jaxaw bi rompañ jaxaw bi laay monté oto bu taxaw ba départ jël sa numéro boo départ numéro fukki dërëm ngi nii kon de bay boo rek ma ma yolomal la dem seet keneen ba xam waaw très bien ndax mu tamit ndax mu tane waaw jërëjëf bi sàko ba yéene ji yëpp yegg na ah, waaw yéene woon naa la ko bu ma ko amoon tam dama la ko jox ndax ah. tabarakallah wa ma min daabatin fi l ardi illa ala allahi rizquha waaw góor gi yow ñu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha illa fi kitabillah yàlla ci nga jóg yàlla xam na mhm. li ngay dox ne yàlla xam na dara ump ko innahu ya'lamul jahra wa ma yaxfa waaw léegi doo ma dimbali boo yoree mille francs sax nga aal ma ko dégg man dama ne hmm. yéen affaire bi dafa agression boo demee ne dima amal mille francs du a yaa ngi dégg de dama la juróom fukk yi la mën a jox moo nekkul fii. man wax. yow yow yow yow bëgg ay jafe-jafe léegi xanaa. yow wax nga man moo xam ne li xam ne mooy man comme sur la damay soog a monté ñu nii. waaw góor xam bitig bi ma la nga fee dugg sax abbu mille francs. dama doon abbu juróomi yow xamal maa ngi lay soog a dégg dërëm bu ma mën a amul benn koo xam ne gën na taa ñëw ñeme sama yow da ngaa ñeme sama xar kanam sax xam nga ni may wooyee xam nga sax ki nga xam ne moo daan ànd ak yonent yi barke a am lii waaw ndax sama vigueur ak sama tàngoor ak sama ak am falaak fay lépp lu ma la war a digal ci man waaw léegi dafa waaw Fatiha falaxi na naan période salaat bi Fatiha ñu bokk yal na yàlla defar seen bi defar seen bi def si suñu fos dara bala ngaa ñaan bala ngaa ñaan xer xam sa amiin yaa rabbal alamin waaw Père yaa ngi ñaan di amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin yaa léegi nag kontaan nañ ci yow. waaw Prestige TV nga sa numéro. man sama numéro waaw bi ngeen a. waaw léegi yow waa Prestige ngay waxtaanal fi tool nii. waaw <laughs> ah, ah, ah, am nga am nga nga am nga waaw. fi ne ànd yaa ngi fi ne yaa ngi ànd ci télévision sax dafay seen dama la bëggoon wax ñu ne am gis naa xar kanam gu xar kanam gu niroo. ci télévision ndax séeréer boo fa nekk sant fay. waaw nuyul ku neex léegi ci télévision yaa ngi ànd rek ci Prestige TV. waaw dëgg waaw léegi nuyul ku la neex waaw. kii journaliste bi ku sant Faye kii la. Euh, journaliste moo yor euh, Paul Paul wala wala wala wala wala kii. moo dëkk moo dëkk Mbour Dóor rek. yéen affaire bi dafa agression ci bëgg am dama la wax sama bopp nag boo demee léegi damaa amal mille francs du mën a nekk. waaw xam nga li ma la yëgal. waaw sàccee fi jàmbur. da ngeen sàccee fi jàmbur kay bee wàccal moto bi moto bi da ngay wàcc wàccal moto bi. bàyyi ma man fekk man sama yaakaar mooy.